Cortica santé ñu ngi am mbégte bu baax a baax di leen dalalaat ci seen émission décortica santé numéro bu bees fii ci ITV nutrithérapie nekk une branche de la médecine maanaam loo xamante ne dafay jàppale bu baax a baax ñi nga xamante ne dañoo am diabète wala sax ñi nga xamante ne dañoo am yeneen feebar am ay jafe-jafe ci wàllum faj bi nutrithérapie mën nañ ko définir comme li nga xamante ne mooy faju ci li ngay lekk dinañ ci waxtaan si kanam ak nutrithérapeute bi di docteur Keba Tamba waaye balaa ñuy dalal suñu gan dañuy seetaan benn témoignage koo xamante ne cela fait 16 ans fukki at ak juróom-benn mu am jabet euh, te tey ji mu sant yàlla bu baax a baax lépp li ko waral mooy nutrithérapie ñu seetaan élément bi dellu si waat. dem naa si structure hospitalière yu ndakaaru yi mais amul benn sori bi ma demee ba nga xam ni partout fu ma dem jabet bi mënul fexe wàcc si laa commencé dem di seeti clinique yi clinique ba ma fa demee tamit. am de spécialistes ñu muy suivre mais boobu ba léegi tamit amul résultat bi ma demee dema dema dem ba jamono toog nga xam ni li mu yoroon lépp def naa ko si ndax 19 ans ngay xeex médicament yi efficace tul piqûre jot na ko mais piqûre yi tamit dem na ba man maa sentir ni lii ça va pas donc dem naa ba découragement am na ndax xam naa conséquences yi ndax j'ai parlé des diabétiques yoo xam ni consi moo leen rey. bi nga xamante ni dem na ba la situation finale alors moment où may bind sama testament pour def ci loolu ndax xawoon naa ba jël yii suuf may ko samay doom def samay jarbaat képp loo xam def naa ko. 19 ans yi nag yëf yi évolué wul dañu bu jàpp samay bët ba 30 ma samay bët gumba gisatuma dara léegi ñu may omat. tey waxuma la dara sentir tan bu baax waaye imagine toi. koo xam ni soixante-dix chaque jour nga def deux heures de marche wala quatre heures mais loolu moo la wëndalu comme nu ma leen ko waxee sànq tey nag ñu ngi dalal ki nga xamante mooy nutrithérapeute bi di docteur Keba Tamba docteur ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Adama kontaan si invitation bi yaakaar ni waxtaan bi dina amal njëriñ sénégalais yi. si sujet bi nga choisir pour ñu mën si échanger tey. ñun tamit ñu ngi am mbégte bu baax baax di la dalal tey si décortica santé docteur diabète gis nañ ne problème bu mag la problème de santé publique la si Sénégal sonal ñu bëree bari diabète mooy lan ci fàttali rek ak lan moo koy andi. waaw diabète dafa doon maladie boo xam ne feebar boo xam ne euh, euh, dafay dal nit ki bu demee ba yaram bi mënatul togg suukar si ni mu ko waree togg. Hmm. parce que yaram boo gis mooy defar lu ñuy wax insuline. insuline boobu nag moom mooy euh, ndox boo xam ne moo nekk suñu yaram fu suukar bi yeggsee rek moom moo koy jéem a wàññi. Mhm. pour mën bay yaram bi mu nekk si état. moo koy moo koy réguler pour mu yaram bi mën a nekk si état de santé bu normal. Mhm. léegi bu nit ki demee nag fekk li muy lekk dafa doon loo xam ne day yokk suukar si ba yaram bi dem ba ñàkk kattan boo xam ne moom lay toggee suukar si suukar si day commencé di jóg si deret bi. te bu yéegee nag si deret bi moom la ñuy ne diabète am na si si nit kooku parce que mm. su yaram bi mënatul wàññi suukar soo xam ne moo ci nekk moo tax suukar bi di des te ëpp si si deret bi daal. Mhm. loolu la ñuy tuddee diabète daal. mais pour tànku tënku ko daal de façon très simple ak euh, de façon peut-être euh, wax boo xam ne ñëpp mën nañu ko dëgg. diabète mooy suukar su fees del si yaram bi. Mhm. Mm. ñu gis ne ñi nga xamante dañoo am diabète le plus souvent seen traitement bi day am ay yenn jafe-jafe yi. Mhm. Euh, ba am na si ñoo xamante sax dañuy am recours si beneen alternative ñu koy wax nutrithérapie. amaana ñu bëri xamuñu ko Sénégal mais lan mooy nutrithérapie. waaw science boo xam ne yàgg na sax science bi boo xam ne peut-être nit ñi xamuñu ko parce que boo gisee gëstu si nutrithérapie dafa doon si loo xam ne mooy ferñeent yu gën a tuuti si loo xam ne moom la nit ki di lekk te ferñeent yooyu doon na loo xam ne presque ñëpp mun nañ ci jot moo tax xëy na intéressé wul torop torop médecine bi pour nit ñi bu baax ci gëstu parce que boo gisee lu ñuy wax vitaminothérapie mooy loo xam ne fajul ak vitamine wala loo gisee lu boo gisee lu ñuy wax aroma aromathérapie loolu pharmacien xam nañ ko mhm. wala euh, phytothérapie pharmacien xam nañ ko mooy tam faj sa bopp si si si garab bi nutrithérapie du lenn lu dul nañu faj suñu baj suñu bopp si ferñeent yoo xam ne moom moo nekk nekk si lu ñuy lekk parce que ferñeent yooyu moo am solo pour lu ñuy tudd cellule mu mun a defar énergie bu doy pour yaram bi mun a fonctionner. Uh-huh. ferñeent yooyu mooy mun a tax suñu yaram am vitalité bu doy pour mun a jànkoon euh, mun a ja en fait faire face aux maladies lépp daal loo mun a tënk te yaram soxla ko mooy li ñuy wax énergie. Uh-huh. te énergie boobu nag yaram bi mënu ko togg si loo xam ne amul ferñeent. Uh-huh. donc ferñeent yooyu yu ndaw yooyu nga xam ne. fekkatuñu ko presque léegi si su suñu li lekk moom moom la ñuy wax nutriment mhm. nutriment yooyu nag moom mooy joxe lu ñu waxee nutrithérapie mooy lan na nga faj sa bopp si li ngay lekk bu dee ñam bi am na loo xam ne moom la ñuy wax nutriment si ins période yu ñu koy lekk moment bi ngay lekk ñam bi dafa war a dekk nekk ñam boo xam ne micronutriment yi war nañ fa nekk mhm. loolu nag moo lay permettre nga comprendre ni boo toggee ñam bi rek wala nga transformer ko rek ferñeent yooyu du fa nekkati te su fa nekkatul rek da ngay commencer di sonal say cër da ngay commencer di lottal say cër te bu cëri sonnee bu cëri lottee rek du ñu mën a fonctionner correctement. Uh-huh. loolu mooy waral na nga gis facilement facilement nit ki dem ba commencer di euh, énergie am bu wàccee rek feebar yi fa lay commencer di jóg. Uh-huh. feebar bu si mel ne jabet nga xamante moom la ñuy waxtaanee tey sax ki nga xamante dafa am jabet. Uh-huh. am jafe-jafe ci wàllum lekk gi. nutrithérapie lan la ko mën a andi. waaw boo gisee tey ñun suñu liggéey gën a am solo moo tax ñu si insister bu baax parce que gëstu yëpp seetlu yëpp tey xam na ni. diabétique yi lu ñuy lekk problème la. Uh-huh. lu tax mu doon problème parce que ñun déjà su ñun li ñuy liggéey te ñu koy wax index glycémique mooy li rapidité bu yaram bi ñam bi am. pour yokk suukar si si yaram bi bu ñu seetlee tey bu ñu seetee tey lu diabétique yi di lekk dañ fay fekk ñam yu bëri yoo xam ne ñam yooyu normalement diabétique waru ko lekk donc tant que diabétique bi nag mu ngi lekk genre ñam yooyu mooy lan mburu bu bëri bi mi ngi lekk euh, pomme de terre bi mi ngi lekk ceeb bi ñetti ñam yooyu foo ko fekk si diabétique jàppal ni suukaram du musa normal mhm. donc bu ñëwee nag si nutrithérapie dañ koy gën a expliquer woon ko ni ok feebar bi nga yor ñaari yëf moo koy gën a joxe mooy li ngay lekk ak sa ak stress boo xam ne moom ngay développé wala xalaat yu métti ak yu bon yoo xam ne moom ngay am léegi bu dee si wàllum lekk bi il faut nga comprendre ni yow tey li nga doon lekk moo tax nga diabétique mhm. donc munoo continuer soit peut-être da nga wàññi ne da ngay wàññi ñam yooyu yaakaar ni sa suukar day normal lenn rek la mooy boo paree tey sa yaram delluwaat am kattan bu mu doon am pour mën a togg suukar soosu il faut nga nangu ñu génnee yi ñam si sa si li ngay lekk mhm. ñu jox la ñam yoo xam ne moom mooy indil yaram bi li mu soxla pour mu mën a tabaxaat boppam mun a dëgëralaat boppam mun a wàññi suukar soosu moo tax bu dee diabétique bi ñëw na déjà dañ ko wax li ñu leen di lekkloo pour ñun baaxul loolu déjà moom mooy premier problème changement lay doon carrément obligatoirement il faut ñu changer mode de vie diabétique bi mode de vie bu ñu koy yóbbu nag mooy vers une alimentation vivante. saine une alimentation saine. une alimentation fortement concentrée en micronutriments mooy lan ferñeent yooyu yu mën a tax yaram bi defaraat énergie mhm. moom la ñuy nag yokk bu baax a baax a baax si li nit ki di lekk moo tax ba. plus aliment yoo xam ne nit ki bu koy lekk du ko transformé du ko togg noonu la koy lekkee parce que ñor na te ferñeent yi ñu soxla foofu lañ koy fekk noonu la koy lekkee léegi nag bu ko lekkee noonu yooyu mooy indil yaram bi mu mun a defaraat boppam mu mun a raxasaat boppam mu mun a yokk niveau d'énergie pour commencer nag di wàññi lu ñuy wax résistance à l'insuline mais est-ce que loolu docteur nekk na processus bu facile parce que ñun xam nañ suñu ay habitudes dañ koy togg togg ba vitamine yëpp day dee daanaka te tàmmuñu tamit di lekk fruits yu bari comme ni ko facile nga mm-hmm. xëy du jour au lendemain nga ne kii da ngay changer say habitude alimentaire léegi lii ngay lekk bu ko defee nga mën a. waaw xam nga ku feebar day yomb parce que moom feebar na donc expliquer ko day gën a yomb si moom mu xam ni li mu doon lekk moo ko indil jafe-jafe yi. Mm-hmm. léegi il faut ñu woon ko ni si si li ngay lekk mën nga si faj sa bopp na si naka mooy que yaram bi joxaat ko li mu soxla. parce que wér aadama bu la kenn yaram mooy wéral boppam bu ñu yaakaar ni garab mooy wéral non yaram mooy bër wéral boppam mais pour mu mën a wéral boppam il faut mu mën a defar niveau d'énergie ba mu delluwaat fu mu nekk il faut mu am benn vitalité il faut aussi mu mën a épurer boppam mun a éliminer déchets yoo xam ne moo fa nekk mm-hmm. donc ku feebar pour expliquer loolu ku expliquer ko loolu day yomb te day dem ba xam ni njëriñam mi ngi si li muy lekk te bu ko defee am na semaine rek moom day gis sa déjà ay yéeg-yéegoo moo koy permettre mu xam ah kon li may lekk nii tey am na njëriñ si man mhm. par contre koo xam ne peut-être feebarul si moom day xaw a jafe tuuti pour changer ko ay comportement mhm. mais li ci gën a am solo mooy li ma wax toujours ñun lu ñuy waxtaanee moom la ñuy dundee mhm. dañ lay gëm won ni sa wér-gu-yaram si sa lekk la nekk sa vitalité si sa lekk la nekk sa am forme si sa lekk la nekk donc loolu nag tàggat la mooy li ma doon wax léegi nii malheureusement kenn mësuñu tàggat pour xam njëriñu lekk si suñu wér-gu-yaram mhm. kenn suñu tàggat pour xam ni yi feebar yi ñuy wax ni yëpp tey tey lekk bi moo ko indi te boo moytoo yeneen ñam yi rek mën nga tam ah, euh, nu mu tudd aar sa bopp si yenn feebar yi mhm. ba tax nañ ñu koy dañ ko wax toujours bu ñëpp xamoon lu ñuy lekk aadama bu ñëpp xamoon lu ñuy def diabète xëy na buy am du bëre tension du bëre mhm. cancer yi ngay dëgg ni yëpp si lekk bi la jóge mais c'est parce que tey euh, mode exactement mode de vie ñu tànn boo xam ne mode de vie qui est lié à à la surcharge en sucre. Mhm. moo ñu yóbbu fee si problème yi ngay gis ni te problème de santé. bu ñu jëlee cas spécifique euh, témoignage bi ñu seetaan sànq ki nga xamante ne cela fait 16 ans muy dund ak diabète ka yu mel ni bëri nañ Sénégal ñoo mhm. xamante ne ëppal nañ sax 16 ans di dund diabète. Mhm. ñu ngi def traitement médical mais xëy na amaguñ si résultat bu ñu bëgg. Euh, moom mu ngi expliqué ni bi mu tàmbalee nutrithérapie la gis vraiment changement. gis na ne euh, situation mu ngi amélioré parce que taux mu changé ni muy lekkee si la affaire bi daal di wàcce loolu naka lañ ko mën a expliquer. waaw de façon très simple parce que boo xoolee kooku déjà situation bi dafa xawoon compliqué parce que demoon na bi ay ay doses d'insuline yu élevées 54 unités xam nga ku koy jël par jour. c'est énorme mhm. c'est ku xam ni insuline hormone métabolique la li muy tam def si yaram bi comme dégâts ñëpp war nañ ko mën a xam. donc bu mu amee chance ba ñu boole ma ak moom bu ñu ñëwee itam dañuy toog waxtaan ma expliqué ko lépp ma ne ko nag tey nag boo buggee retrouver wala déjà parce que premier objectif mooy la li ñuy def ba wàññi dose insuline yooyu mm-hmm. bu ñu commencé nag commencé wàññi retirer yenn aliment yi yoo xam ne moom moo doon yokk suukar si moo taxoon nga gis ni chaque fois mu nee na glycémie mënutoon mënutoon équilibré presque mhm. parce que mu ngi doon continuer di lekk ñam yoo xam ne moo doon yokk suukar si donc bu mu yegsee yooyu laay yooyu su ma ko retiré nag introduire ay ñam yoo xam ne moom mooy gën si moom moom moo koy indil loo xam ne moom mooy mun a defaat mu wàññi léegi progressivement si la ñuy def lu ñuy wax monitoring de la glycémie dañuy topp muy jël glycémie bi ñu xool bu glycémie bi wàccee ba ñu wàññi itam noonu la wàññee dose yi ba finalement mu retrouver situation boo xam ne presque comme ni mu ko waxee nii ñu mënoon a def intervention bu ñu mënoon def comme presque cataracte la doon def demoon ba perte presque vision bi. Mhm. léegi comme glycémie demoon ba équilibré ba normal si lañ ko mën a defal intervention moo ko permettre tey mu retrouver santé bu mu am. Mhm. bu weesoo diabète est-ce que la nutrithérapie day concentré sur lu ñuy wax la cellule ah. les besoins physiologiques et biochimiques de la cellule parce que boo xoolee nutrithérapie lenn la science la boo xam ne moom laay wax toujours c'est une science pharmaceutique et médicale ah. qui est basée sur la biochimie des cellules et la physiologie de cellules mooy lan lan la cellule bi soxla pour mën a liggéey correctement te que cellule bu nekk mën a jouer pleinement sa fonction si loolu rek nit ki mën a am rek léegi ah. moo tax feebar bi ñun du loolu moo ñu moo ñu amal solo tey boo ma fekkoon tey may wax ci cancer parce que même discours bi laay wax su may wax ci maladie articulaire même discours bi laay wax su may wax tam ci beneen type de maladie presque même communication bi la parce que yooyu yëpp boo seetloo fi mu sosoo mooy fenn mooy li ñuy wax carence micronutritionnelle te carence micronutritionnelle bi fan lañ koy fekk mooy fu ñuy wax cellule donc ñun cellule bi moo ñu intéressé moo tax du matin au soir lépp lu ñuy liggéey c'est comment satisfaire les besoins de la cellule mooy tax nit ki mu feebar wala mu bañ a feebar si les besoins sont satisfaits ça se voit automatiquement sur la qualité de sa ah, santé loolu sax nit ki warul xaar ba feebar di dem parce que moo tax boo gisee ñun suñu communication mooy comment faire de telle sorte que nit ñi bañ a feebar prévenir loolu mooy suñuy liggéey tey boo gisee wax ji yëpp li ñuy def yëpp mooy ni ñuy jàppale nit ñi pour ñu bañ a feebar ah. te pour nga baña feebar il faut nga jox sa yaram moom li muy mën a eh, am pour mën a bañ a feebar ah. loolu mooy nutrithérapie léegi ku feebar tam dañ lay jàppale pour xool nooy mënee à partir de li ngay lekk pour rééquilibrer ces paramètres mhm. pour redonner encore de la vitalité à ton corps pour redonner de l'énergie à tes cellules. yaa ngi koy wax léegi nutrithérapie day répondre à un besoin de carence. bu ñu xoolee dans la société sénégalaise lan moo ñu gën a manqué yan carence la. carence yi dafa bëri boo jëlee magnésium bi presque ñëpp a carence yaa magnésium. et le magnésium intervient dans presque plus de 300 réactions biochimiques boobu rek bu manqué si nit rek presque lépp lay perturbé niveau d' énergie bi bu mu fam amul magnésium ce niveau d' énergie day wàcc soo ñàkkee fer da ngay def li ñuy wax anémie soo ñàkkee nu mu tudd potassium loolu moom boo jëlee jabet bi chrome chrome boo xam ne moom la pancréas bi di defar moom la ñuy fekk en déficit chez les diabétiques mm. parce que chrome boobu dafa am solo ci métabolisme de de de de mm-hmm. donc bu am ba pancréas bi ñàkkee chrome boobu rek day infecté day day affecté considérablement activité pancréas bi mm. donc loolu tam carence la boo xam ne wala déficit la boo xam ne bu ñuy retrouver chez certains malades donc nutrithérapie liggéey mooy ni ngay defee à partir de l'interrogatoire à partir de de de du bilan biologique pour mesurer ou bien identifier ces déficits après nga corriger ko par l'alimentation pour rééquilibrer tous ces paramètres là. correction par l'alimentation dañuy seetaan beneen témoignage koo xamante ne ni euh, grâce à la nutrithérapie euh, dafa gën a rajeunir mun nañ ko waxee noonu. Mm-hmm. amaana sax bu ngeen ko gisee léegi di ngeen si rendre compte parce que elle ne fait pas son âge comme nuñ koy waxee ñu élément bi dellu si waat. Euh, bàyyi ma woon xel bi lekk ci santé wu nit importance boobu bi mu am bi nga xam ne lii euh, docteur Tamba moom ma ko jàngal dimension boobu xaw ma ko woon xaw moo ne sama àddina mun na renverser wu chambouler wu totalement parce que dama changer ma manière de de de manger soxna si man su ma yeewoo tey eau alcaline bi mu doon wax moom laay naan bu ma paree ci eau alcaline bi ma naan sama jus d'agrumes limon ak pamplemousse ak orange su ma ci paree man lekk sama smoothie smoothie bi nag ay fruits plusieurs fruits lay doon bu ma ko lekkee mën du ma añ damay toog ba ngoon bu may añ ngoon lay añ ay 7 heures 8 heures yooyu laay añ donc damay def de de de du du jeûne euh, euh, euh, en en alternance ngoon par ngoon laay lekk ba pare damay woor lundi ba ak jeudi damay woor parce que koor. garab la aussi docteur Tamba dafa la koy wax corps aussi dafa baax ci nit ci organisme donc man dans ma tête comme ni ma ko doon waxee sànq man li ma année prochaine ma am 70 ans année prochaine ma am 70 ans mais damay bondé man sama sama sama lépp dama ko accès ci lekk bi du ma lekk n'importe quoi du ma naan n'importe quoi produit industriel yii nekk ci euh, euh, kii yi sur grande surface yi dama koy romb foofu dem ci fruits et légumes fruits et légumes nag lu mu am rek fu fu mu fu mu des rek maa ko fa bàyyi parce que du ma li may dépenser mënu leen wax budget bi ma am ci fruits et légumes luy faj rek lay lekk du ma lekk ay ay yoo xam ne yu dee yi nga xam ne guu bi fii ba fii rek la après li ci des yëpp ay problème la ngay dem di fay ay ay médecin ñu lay defal ay ordonnance ngay jëndi ay garab man du ma naan garab du ma naan garab garab yi mooy li may li fruits et légumes may lekk nii mooy samay garab Euh, docteur mu nekk euh, soxna boo xamante ne nee na 69 ans la am mais boo ko xoolee doo ko ko yaakaaree grace à la nutrithérapie. Mm-hmm. waaw xam nga tey ñun suñu liggéey moo tax nga gis ñu def ay session de coaching ay session d'accompagnement lu ñu gëm mooy nit mën na màgget te du feebar léegi nit ñi dañu war a dugal seen xel ni mën nañu màgget et être santé loolu nag dafay soxla nit ki mën a toppatoo yaramam. dafa fekk day so day laaj tam nit ki xam lu muy dugal si yaramam boo ko gisee tey bu la xool agom doo ko gëm li waral loolu mooy mi ngi toppatoo biir yaramam yaram baa ngi set si biir yaram baa mu ngi koy dundal looy dundal loo jox sa yaram comme mu doon ay ay lekk ñam yoo xam ne moo lay dundal day feeñ si yow parce que euh, màggat wala vieillissement carence la signe de carence la mooy lan sa yaram mii dañuy dem di puiser ses réserves donc bu ñu puiser réserve yi mooy tax nit ki euh, vieillissement bi ñu accéléré ko par contre bu dee yow chaque jour yaa ngi régénérer ses cellules yaa ngi lekk loo xam ne mooy ñu permettre ses cellules ñuy defar seen bopp ñuy raxas seen bopp mais macha allah da ngay commencer di métti parce que ñun suñu gëm-gëm mooy il faut que ñu mën a vivre sans plus de cent ans et être en bonne santé en bonne mm-hmm. mooy lan il faut qu'on ait qu'on vieillisse qu'on bien. Mhm. qu'on vieillisse en bonne santé pas de maladie mhm. parce que tey dem nañ ba gëm ni nit dafa war a feebar non mhm. yàlla sàkkuñu aadama yàlla defaruñu pour ñuy feebar yàlla dafa ñu defar pour ñu am wérgu yaram te pour nga am wérgu yaram yaa koy to yaa koy sàmmul sa bopp yaa koy sabablu sabablu mooy la xam lépp li ngay dugal sa yaram ndox bi ngay naan ñam bi mhm. ngay lekk xalaat yi ngay am loolu moo lay permettre nga mun a dund dund sans maladie parce que loolu mën na nekk te ñun suñu ngëm-ngëm la. waaw ah, wax nga ko léegi sax euh, ni nga xamante ne ni euh, moom la ñu war a mën a lekkee changer suñu façon yi lekk mën na changer lu bare bare suñu organisme xanaa dellu si waat si nu ñuy lekkee fii ci Sénégal. nan nga ko gisee. no lekk bi moom fépp la du Sénégal rek. parce que le cas spécifique du Sénégal le cas spécifique du mooy lan suñu façon toggin. mooy tax ba léegi lu ñu lekk moom la ñu aliment transformé. Mhm. ñam bi boo ko toggee mu def presque deux heures de temps trois heures de temps nga koy togg. lépp luy ferñeent presque te ñu soxla ko te ñu koy tuddee micronutriments nekkatu fa parce que boo dépassé 40 degrés. ñam bi presque li ci am solo nekkatu fa. Mhm. ba tax na boo yekkee liñ bu jox ñi ñi ñuy lekk lu ñu lekk loolu yëpp pour feesal seen biir la mais yaram bi cër yi amatuñu gisatuñu si seen bopp. Mhm. loolu mooy tax bay bu ñuy plus ñuy màgg suñu cër yi day dem ba lott parce que ñun la ñuy lekk boo commencé ndekk bi añ bi. reer bi yëpp ay ñam la yoo xam ne loolu la ñuy tuddee aliment transformé te boo transformé aliment bi malheureusement ça devient ce qu'on appelle un aliment mort mhm. que lan amatul luy dund ci ñam boobu donc boo ko lekkee mënul dundal say cër te cër luy luy dund rek moo ko mën a moo ko mën a jox euh, li mu soxla moo tax tey boo waxee Sénégal lu tax feebar yi gën a bëri moo tax nga gis tension yi di gën a bëri mhm. diabète yi di gën a bëri hypertension dëgal nu tudd AVC yi gën bëri cancer yi di gën a bëri parce que ñam yu ñuy lekk doonatu ñam boo xam ne mooy tax nit ki war a obésité mooy point de départ bi boo gisee nit ñaa ngi am ñu ngi pata mhm. ngi am poids poids yooyu nag mooy indi feebar yi ngay dëgg nii yëpp ñu yaakaar ne malheureusement parce que li ñuy ñàpp moom lay wax toujours la santé c'est la maigreur santé wérgu yaram ak sew la pata feebar la nañ nit ñi góor góorgóorlu bu dee bëgg nga xeex pour am wérgu yaram li nga war a njëkk a xeex mooy bañ a am yaram mhm. parce que bañ a am yaram mooy wane ni sa yaram set na sa yaram si biir lépp jaar na yoon loolu moo lay permettre nga mun a. mais mais boo paradoxalement boo jeexee dañ naan xanaa dafa feebar. waaw que loolu ñàkk xam la moom la ñuy wax ignorance bi moo ñuy moo ñuy lor lu tax ignorance bi lor ñu parce que Sénégal dañ foog ne taar mooy am yaram. boo tax na yéen jigéen ñi par exemple ku si sew rek ñu ne ah sa sëy neexul wala sa kër neexul ba mooy pour sax nit ñi léegi boo xoolee boo demee di si pharmacie li nit ñi di jënd si garab yi leen di may yaram mënoo ko xam mhm. doom yooyu la jël pour mën a am yaram alors que xamuñu ñi ñi ngi gaañ seen bopp conséquences yu métti tey ñu ngi nii ñu ngi wax cancer cancer mais xeex bu njëkk ak cancer mooy xeex contre l'obésité mhm. ak le surpoids Euh, docteur gis nañ ne euh, Sénégal feebar yi bari nañ léegi yaa ngi koy wax sànq ba tey di diabète euh, hypertension yenn cancer yi ak insuffisance yu demee noonu lan lañ war a changer selon vous suñu façon yi lekkin privilégier yenn yi bàyyi yenn yi nga xamante ne nii chaque waaw boo seetloo tey li may wax toujours rek urgence la sax pour nit ñi comprendre ni war nañu changer suñu mode de vie mode de vie bi dafa imposer ku nekk xam tey nii feebar yi war du jóge si biti feebar yi si suñu biir yaram la jóge su nit ki toppatoorul biir yaramam moom loolu mooy yombal feebar yi mën a développer facilement léegi nag loolu lu muy laaj mooy bés bu nekk soo yeewoo aadama da nga war a xam avec conscience lan ngay dugal sa yaram il faut say cër ñuy dund cër yi nag pour ñu dund il faut nga jox leen ñam yoo xam ne moom mooy ñam yoo xam ne mën nañ ko dundal mooy lan fruit yu bëri hmm. légumes yu bëri mais te légumes yi boo koy togg du doon comme ni ñu toggee légumes yu Sénégal il faut soit nga def ko à la vapeur. Uh-huh. wala nga def nga sotti ko wala nga def ko cru. parce que si état boobu ngay mën a fekk ferñeent yoo xam ne moom mooy amal solo yaram bi pour mu mën a toggal ba uh-huh. pour mu mën a am wér-gu-yaram donc tey pour ñëpp jox war ko jàpp lépp mu ngi si li ngay lekk mais dafa laaj nga changer. Uh-huh. xam ni lépp pour nga mën ko am tam il faut nga changer li ngay lekkee parce que loolu moo lay mën a permettre sa yaram mën la jox li li nga bëgg. mais bëggoon naa xam tamit ndax nutrithérapie est ce que diabète mën nañ koo guérir si nutrithérapie. mais du benn du ñaar et puis commencé aussi ah mondialement aujourd'hui appliqué du fii aux États-Unis en Europe partout et c' est du en fait d'une ce qu'on appelle la chirurgie bariétrique mooy nag ñoo xam ne dañuy am poids ñu defal chirurgie bu ñu leen defaree chirurgie bariatrique mooy dañuy wàññi li ñuy lekk wàññi lekk boobu moo wane ni après seen diabète sax day dem ba disparaître si loolu la ñi commencé gëstu en Angleterre am na étude bu bëri bu ñu ci def au niveau de de du médecin ki def étude boobu moo wane ni bu ñu wàññee apport calorifique bi dafa permettre ñu corriger nu mu tudd diabète bi. Mm-hmm. te ñun tey à dans la pratique dès qu'on change le mode d'alimentation. on voit que tous les paramètres se régulent donc noonu ngay def di wàññi wàññi wàññi wàññi dose médicament ba nit ki dem ba foo xam ne soxlatul médicament mhm. léegi ku soxlatul médicament am mode de vie boo xam ne permettre na ko mu bañ amaat suukar eh, loolu loo ko na ñu ñu ñëw polémiquer ndax diabète mën na wér ou pas mais ñun si certitude la par rapport à notre niveau mhm. ku xam luy énergie cellulaire ku xam luy vitalité cellulaire ku xam luy importance micronutriments quand tu prends aussi une carence en magnésium tu corriges presque 300 réactions donc nga war a comprendre bu ñuy ne non nit ki mënul faju ak nit ak li muy lekk ñàkk xam la te maintenant <laughs> ignorance sax mënul yegg foofu parce que boo xamee li biochimie cellulaire boo xamee lu physiologie cellulaire. Mhm. waratoo sax poser sa question si un apport conséquent en micronutriments permet de corriger beaucoup de paramètres biologiques. am na solo ñu ngi lay jaajëfal en tout cas bu baax a baax docteur Keba Tamba si si nga si li nga defoon suñu invitation tey. merci Adama maa ngi lay gërëm yaakaar ni waxtaan bi dina amal njëriñ population bi parce que pour ñun tey. éducation nutritionnelle la ñu war a gën a mhm, am na solo yéen itamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax baax si li ngeen àndoon ak ñun ci santé fii ci ITV di leen jox dig daje fileeg fukki fan ak juróom ngir beneen numéro. Décortica santé